Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre, je voudrais saluer votre délégation et saluer derrière vous les femmes et les hommes qui assurent la sécurité de ce pays et qui se dévouent du mieux qu'ils peuvent pour euh, donner à notre pays euh, la sécurité qu'elle mérite. Au passage maa ngi nuyu force de sécurité yu nekk ci Assemblée nationale gendarme yi nga xam ne ñu ngi fi guddeeg bëccëg di ñu ñoom it aar force de sécurité yi dañ leen war a amal benn gis-gis ak respect spécial parce que daf ci am ñoo xam ne foo nat rek amaana ñoo la mën dama ci bokkoon ñoo xam ne ba ñu nekkee seen ñu gënoon xarañ ci jàng jàngkat yi lañ bokkoon waaye tànn servir seen réew servir te amuñu droit wax amuñu droit tontu ci lu ñu leen mënta wax te yàlla xam ne ni mooy boo moytul am na lu leen naqari ci sax peut-être suñu taxawaay ñun moo tax man saa yu ma nekkoon romboon force de défense mu nuyu ma damay xool ndax man ba ma nekkee ci responsabilité ndax man re mérité naa respect bi ci sama taxawaay may fàttali nag que sécurité Sénégal ñun ñoo ko wax. ñun administration bi yéen yéen a bind ni que dellu na ginnaaw mu ngi ci document yi ndax nee nañ ci risque yi ñu gën a jàll jànkarteel tey ci Sénégal bokk na ci risque trouble mooy yi fi jaaroon ñu dénkoon réew mi nag 2012 waxuma ni booba sécurité bi jagoon na waxuma ni lépp ci pàcc gouvernement bi la jóge ndax boo xoolee Sénégal ni mu bindoo ces trente dernières années dëkkuwaay sax da ngay gis nit ñi dañu ànd ak tiitaange grille yeeg garde yéeg porte blindée yeeg drogue bi mu ngi fi gaañ bu ñu wax ni honorable député bu ñu wax ni que waa doxandeem yi ñoo ko fii indi rek ñu ngi koy béy ci réew mi di ko jëfandikoo ci réew mi ak doole te waral na lu bëri ci insécurité bi loolu bu ñu doon xool lu ko waral amaana bu ñu xoolee bokk na ci ndóol géeg chômage bi boo xoolee d'ailleurs demande de gendarmerie yi ak poste ak commissariat yi ci département yeeg yooyu nga xam ne sécurité bokk na ci demande sociale ci biir réew mi donc mun ñu werante ni sécurité ñàkk na waaye lu ko waral monsieur le ministre bokk jàpp naan tamit seen taxawaay mu ci dara parce que bu ñu jëlee interdiction marche yi dañ leen dénk réew mi ñu nekk gënu leen ñu nekk patriote gënu ñu nekk responsable ñu war a dox def marche Par exemple, keroog ba les gens du secteur primaire les syndicats du secteur primaire agriculture pêche élevage bu ngeen ñuy responsable ñu ne leen du ngeen marche xaar ba beneen semaine joxaat leen ñun ñaata yoon la ñu tere marche ñaata yoon la ñu tere ñoom biram ak ñoom président Macky salle marche ñaata yoon bu ñooñu ñëwaatee ñu dénk leen réew mi yaakaar ci ñoom ay jéego ci kanam ñu ñëw di ñu jox même lay. ñi nga xam ne ñooñu ñooñ ñu jox démb te xam nañ du dégg te moo taxoon ñu jële fi ñu fi newoon bu boobaa dañuy ne ñi lii mu ngi nuroog yabaa xeebaate ndax mënuma la dénk sama réew dénk la sama kàddu nga jàpp ni yaa ko moom d'ailleurs dañuy ne borom réew mi d'ailleurs par parenthèse monsieur le président de l'Assemblée nationale du président Macky Sall moo la choisir de député yi ñoo la wooteel ci li ma jàpp parce qu'on est en pouvoir on ne comprend même pas la séparation des pouvoirs donc pour revenir ci kii monsieur le ministre day dem ba nga xam ne milis milice boo newee yow en tant que responsable gisoo milice yi nga xam ne 17 millions de sénégalais gis nañ leen aux événements de mars day poser problème day poser problème confiance en la parole publique monsieur le ministre bu fekkente ni au mois de mars un jeune qui était sorti ma ne à l'école je ne dis pas que c'est votre responsabilité encore une fois te ñëpp xam nañu taxawaay bu ma amoon ci panne boobu mais un jeune de de 17 an 16 ans dem jàngi ñëwaat ñu ñu ñu ñu fekk kooram néewam ci benn supermarché ba tey xamuñu ci yan circonstances la deewee bu may daanelee monsieur le ministre maire suñu maire boogal kay fexe mu toxu ñun bu ñuy dox di dem en tant que opposant gars yi defal ñu sécurité buy doy mais pour ñu déglu ñu loolu day tax gars yi bu demee ba mu yàgg duñu am benn pexe lu muy ne dañuy jëngu un pays on vous l'a confié c'est les citoyens qui vous l'ont confié quand les citoyens ont l'impression merci merci chers collègues la parole à soxna Ba numéro 2 Bakary Diédhiou se prépare